boo ko defee moom mu indi commentaire ci nu mu gën a tënkoo rek boo ko defee incha allah ñu doo ko yëkkati jataay bi bismillah sëñ Galas bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa wa ala alihi wa ashaabihi tayyibina tahirin da xam naa eh, ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci ñaanal kilifa yi fi teew yëpp Eh, di ñaanal Serigne Cheikh mu sëriñ Saliou mu yàgg fi loolu eh, te gën a wér ak Serigne Jili Mbacke mu sëriñ Saliou mu yàgg fi loolu te gën a wér ak sëriñ Mourtada eh, xanaa di bég lool ci jotaay bi ni mu tëddee nii mu mel ni ñu ngi ñaanalit sëriñ xalil bi nga xam ne moom moo doon taxawee waxtaan wi. te mawdon bi mu fi indi muy ataasub fil manzour al islami par parloo nan la ko lislaam gisee wax dëgg yàlla traité na ko traitement boo xam ni ñëpp mën nañ ci jariñu euh, xanaa damay soññe rekk ci euh, wax ju rafet ju jub ju tedd bu génnee ci nit ku xolom sell jëm ci jaam ñi nañ ko fas yéenaa jëfandikoo te di ko roy bu baax a baax euh, par parloo nag dafa am ci biiram lu ñu woowee worma worma gi nit ñi joxante bu fekkee yaatu na ci diggante nit ñi worma jooju mooy indi par parloo du am kenn ku ne am na lu sa moroom yelloo ci yow na ko jox sa moroom xam nga li sëriñ bi wax ci nax ju rek nii nee nit ki teraanga jëm la war a teral wala teggin yi war a séq ak yow sëriñ Touba nee na bu ko seet ci moom seet ko ci sa bopp waaw waxtabir bali atabir min nafsikal adaba wala tutaaliban bihil asxaaba nee na del xool teggin yi ci sa jëmi bopp wala tutaaliban jooju nag ma na maa dégg sëriñ Sall di ko wax ba agsi ci ki ko doon jottali ne bul sàkku mu a déer bul seet lay tekki nee na wala tusa wala bul seet bii ci teggin yooyu al asxaaba moroom ya moo wax àndandoo si ne ko moroom ya kon nit ku ne li ngay xool ci sa moroom boo ko dee def bu yàggee da nga am loo ko sajje xef waaye su fekkente li nga war a xool ci moom ci sa bopp nga koy xool kon bu boobaa da ngeen dem ba égalité kenn ku ne nawloo moroom je ngeen ànd yi dox beneen biit buum gi yàlla wax na nañ ci jàpp bu dee jullit bu nu ko defee kenn dootu mën a gis sa moroom ci leneen lu dul jàppeeku ko ne nit la sa nawle la ko war a àndal la moo bi hablillahi jami'an wala tafarraqu waaye nag xéewal yàlla nee defal naa leen ko ndax mas ngeen a doon ay noon ndax da ngeen a noonoo woon ba ngeen di wàcc ci kaw suuf ma def leen ngeen di ay mbokk kon sant leen ma ci loolu waskuru ni'matallahi alaykum is kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi nicmatihi ixwanan wa kuntum ala safa xufratin min annaari fa anqasakum minha kon loolu war nañ ci sant yàlla bu baax mel na ni jotaay bi moo xaw gàtt waaye waroon na mën a gudd nii allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ Saaliwu Mbàkke euh, nu ngi nuyu sunu sang yu baax yi fi teew yépp jiital ci euh, sëriñ Jiili Mbàkke moom sëriñ Saaliwu ak Cheikh Mourtada ak Cheikh Saliou Ndigal Thioune euh, li ñuy sof ci kàddu yi rek xanaa lu gàtt lay doon mooy tàmbalee ko ci li ñuy wax li wolof naa bay sa sa wewu tànk mbay sa wewu tànk mooy daje bii nga xam ni wooteeb kenn nu dajale mooy Cheikhul Khadim li nga xam ne mooy tax wuute yooyu ak parparloo di du am ci sunu biir mooy nu bañ a jàppe sëriñ tubaa jëmm waaye nu jàppe ko mbirum yàlla moo xam ne ab séddaleem dafa matale kenn ku ne na la yàlla bindee noonu la la sëriñ tubaa tànnalee kilifa goo xam ne seeni mbir dëppoo na su ngeen àndee ci ndigalu sëriñ Touba na ngeen war a àndee da ngeen gërëmante tey da ngeen gërëmante ëllëg sunu wuute itam nu jàppee ko taaru yoon wi mooy mm, li waa kër Cheikh Ibrahima Fall man eh, waa kër Serigne Mbacke bu du ñu manee noonu waaye li waa kër Serigne bu so man waa kër diw sàngam duñu ñu manee noonu su ko defee kenn ku nekk xam ni. li ñuy wax édifice maanaam ab tabax kenn ku nekk day bokk ci benn koor dem métier buy tax tabax boobu mën a taxaw boo xoolee nag matale googu ak yërmande jooju lislaam rekk moo ko am ndax idéologie yi nga xam ne moom la ñuy wax idéologie totalitaire muy ab woote boo xam ne koy woote nekk ci bopp ba day wax ne ku ci bëgg bokk nii ngay mel boo ci bokkul dama la fiy jëlee yépp dafa échoué muy nazisme muy communisme ak yenn idéologie yu bari yoo xam ne bi ni sax di bind lettre Gorbatchev daf ko ne seen xalaat yi doxalini àddina yi yàgg-yàgg mooy tas àddina te moo koy sànq te loolu ñun ñëpp teg nañ ci bët waaye la mu tëjee lettre ba mooy wasalaamun ala man ittabaal huda njub gi nag njubug yàlla la loolu moo mën a tax bu ñu bennoo ci principe yi nga xam ne moo ñuy boole te li ñuy tàqale kenn ku ne jàpp ne lu sa moroom man la nga tële ko te kenn ku ne am na loo taw féexoo ci sëriñ bi te bëggoo koo weccoo kenn su ko defee kenn du mën a dox suñu diggante loolu nag bu amee ci sunu biir nun waa kër sëriñ Touba fun ñu ko bëgg yóbbu dana fa àgg ndax woote yi ak idéologie yi wër àddina ci benn nit dong lay tàmbalee te sëriñ bi mbiram teel naa sori lool te it dox na ci kaw pexey Touba yi mooy wallaahu xayrul maakiri jooju di alxuraan di wax mooy ñoom maanaam tey li ñuy wax téléphone portable ak nouvelle technologie yëpp biñ koy def dafa am yeneen idéologie yoo xam moom la ñu bëgg mu mu tasaaroo ci àddina te gis ngeen ni ci Serigne Touba di jaarale ab liggéeyam fenn fu ne mu di fa àgg li ñuy wax nag ay barrières linguistiques buñ koy jéggi rek woote Serigne Touba di di yegg fépp ndax li Serigne bi di wax séeréer bi. mu di ko gëm bu ko waxee wolof bi wax ko joolaa bi wax ko français bi ñoom ñëpp dinañ ci daje te kenn du yëg ne sa waaso gàllankoor la fii ma toog di séeréer ci biir tukkuleer yi yëguma dara lu may wàññi ci seen biir wala lu ma leen lu may suufeel ci seen biir li ma yëg mooy kenn ku ne fa ma la teg fu féete kaw fa ma teg sama bopp damaa yëg ne yaa ma gën a ragal yàlla ndax inda inna akramakum indallahi atqaakum kon loolu gis nañ ko ci yoon wi ñuy sukk di defuñu ko ngir aada wala ngir xeeb seen bopp waaye dañ koo def ngir yëg ne ñii ñoo leen gën a ragal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Thierno euh, kàddu yi am na solo lool te te te matale na yàlla na yàlla fay te barkeel boo ko defee kon xam naa ne dañuy fàttali rek ne jataay bii di ñëw ci àjjuma bii di ñëw incha allah sëñ Abdoulahat Saani moom moo ko war a taxawee. mu nekk alfawda fil fatwa mooy coow waaw mazahirul fawda fi sinaatil fatwa fi Sénégal mooy coow wala phénomène wala yi nga xam ne moo feeñ rek nekk ñàkk nosu daal gi am ci li nga xam ne moom mooy wàllu ubbee di laaj ak tontu ci wàllu diine loolu la fas yéene waxtaane incha allah muy tawfeex